salaamaaleykum les amis internautes ñu ngi leen di siyaar ku nekk ak turam ak santam tey nag ñu ngi fii ci kër Fifty Fifty nag ku ko xam di euh, garde corps Wally Ballago sekk tey doon tudd doomam mu doon nag lu rafet tuddee ko nag euh, nit ku màgg ci réew mi muy Wally Ballago Seck Fifty ñu ngi lay nuyu. Euh, bon ginnaaw ma sant yàlla sant yonent bi sant sëñ Bamba gërëm sama ñaari waajur d'abord di ña di jaale mama Diaga d'abord mu jëm gën a ko fi mu jógee. jaale jaale moom yi Papa ak ñi fa nekk ñëpp ñu nekk bi suuf yëpp jaale waat encore une fois Wally Seck ak ay njabootam yëpp waaw saraxam yàgg si loxo bu baax a baax a baax. Mhm. nga nga tuddee ko tuddee ko Wally Ballago Seck gis sa mbokk yëpp teew euh, ban yëg-yëg nga am tey. waaw Wally xam nga sama xarit la dañoo yàgg. Mhm. c'est que 2009 ba ñu ànd doom moom bu jotee turandoo bu jotee rek jot. Mhm. bi mooy sama suma juum suma troisième bant waaye 2009 ba léegi ñu sama xarit la te dama ko bëgg dama ko bëgg trop trop trop ba mu xam ko léegi laa ko desaloon tuddee ko doom est ce que moom yëg na ko avant nga xam ne euh, bi nga amee dama xam ne di nga ko tudd dara bi ma fa demee jeudi defe naa jeudi laa la am doom jeudi fànn dimanche daal dem naa fa ndogu parce que man chaque année damay dem foofu ndogu dem fa ndog bu wàcc dem sama yoon yëgu ko sax mhm. kenn yëgu ko mhm. yëgal naa ko ne am naa doom bu góor mhm. waaw wax ko soxna ay dara comme ni ko waxee yéen ñëpp ko waxee presse bi yëpp waaw ban yëg nga am ci diggante moom ak sa liggéey yaag moom bu mu tax na nga tuddee ko doom sama xarit la ñoo yàgg dama ko bëgg xam na ko bu baax njabootam xam nañ ko ñu ko xam nañ ko ñu bëgg trop trop trop waaw mooy soog sama xarit la yëg laa ko desaloon moom xam na loolu sama xarit la te en même temps mu respecté ma trop mooy wàlla xanaa xamoo dama ko rus moom dañu rusante duñu xoolante nii face à face xam na si loolu mu nekk nit ku baax baax baax baax waaw ginnaaw ginnaaw bi nga ko bi nga ko tuddee doom ak tamit euh, liggéey bi ngeen liggéey ak tamit euh, gis nga fi mu jóge euh, ba ñu bëri ñu bari jàpp yàlla ne bàyyi na woy ak fi mu jaar yëpp naka ngeen ko dundee woon jamono yooyu. waaw mais man dama jàpp ni comme moom waxul rek. man du ma gëm dara. Mhm. moom bu waali waxee. ma gëm bu waxul du ma gëm. wala moom staff quoi. mais Waly mooy patron bi quoi moom bu waxee rek ma gëm bu waxul du ma gëm. waaw moo tax mu demee noonu quoi. mais ñu bëri ñu bëri di ko tuddee doom Waly ko sekk yow nga ñëw tuddee ko doom. mais tey ñu bëri naan Waly Seck ku ko tuddee doom rek intérêt moo tax. nooy dunda loolu tey boo déggee wax yooyu. waaw ñoo ñooy wax loolu ñu xamul ñooy wax loolu. ku ma xam Waly ku ne ñëpp xam na maa sama diggante Waly. déggu ma la 2009. ba 2003 ay 2004 2009 ba léegi ñuy ànd maak moom. ñu ngi si 2000 ñaata. waaw ñu ngi si ñaar at la. yàgg na. ñaar at la. yàgg na trop. ñaar at la waaw. ñu ngi 11 ans. 2009 maak moom dara musul ñaaw. depuis bi muy kii di ko ménager Adama Bey. Aziza ñëw Ndiaga Euro taxi. 13 ans ëpp waaw. ba léegi ñu ngi ànd 2009 ba léegi ñu ngi man sama takk clip boo juddoo fekk bàyyi. boo juddoo fekk bàyyi. clip boobu yaa ngi koy seetaan yaa ngi koy fàttaliku. dafa pare rek mu ñëw sama mariage. Mhm. ñu bari xamuñoo boo presse bi bëriwul woon noonu. Mhm. boo juddoo fekk bàyyi. Mhm. dafa pare rek wala ñëw sama mariage directement. ànd ak ñuy wax euh, Aziza. Ah. suñu xamante lu si ëpp kii moo ko gën a dogal ñuy wax Kiné juuf sama yaay maman Kiné Diouf. moo dogal sama xamante ak moom waaw ah, dawaa li daan génn fenn mu du ma bàyyi ma fenn mu ne ko woo leen fifty loolu moo tax man su may job ak waale li ma si ànd ak dama si dama siy def ak xër ki na juuf moo tax ñu gën a xamante mhm. moo doon foo nekk waale mi ngi fii waale mi ngi fii demal billaah ak weeru koor gi mën na ko koor mhm. waale xam na loolu may wax ba ay mbokkam mu ngi si xam loolu baax mhm. noonu la demee quoi moo tax ma jàpp ba léegi nii waaw te du ma a bàyyi incha allah bu neexee en tant yàlla mi may kattan. mais ma gudd fan ah. damay jàpp. ba yàlla yàlla def lu gën ci moom. boobu ak léegi ngeen di ànd ak Wally Seck Wally Seck di déglu na ngeen nekk ci ginnaaw naka ngeen di dundee loolu yéen entourage moom yéen a ngi ci ginnaawam. waaw ah, loolu miis nañ ko ah, man moom miis naa ko quoi. boo bëggee wax sax naa la non jaru ko. Ah, yi moom ñu ñaan yàlla yàlla defal ko jàmm ko gudd fan. sàmm ko bu baax bàyyi ko fii. bàyyi fi ak njabootam mu yeggal yoon bi. Mhm. waaw di jaalewaat nag suñu maman Diaga. sama yaay. Mhm. maman Kiné Diouf ñu ngi koy jaale bu baax. Papa Thion moom yi ak ñu nekk bi suuf yëpp waaw ko jaale ak njabootu sekkeen yëpp waaw. suuf mhm. si di tudd doomam tuddee ko Wally Ballago sekk mais gisuñ fi Wally Ballago Seck mu teew lu tax teew loolu. pardon. suuf si di tuddee doomam Wally Ballago di tudd doomam tey même boo ko tuddeewul Wally Seck waroon fii mun a gis Wally mais gisuñ ko fi mu ñëw. mais yéenay Wally yéen. yéen a ngi nii. perso ngi fi Amady gaay a ngi fi. presse baa ngi fi. mais dañoo gis balaa Ballago Seck di teewal ñu bari mais tey lu mu dee dee Wally waroon na fi mun a teew.

dal na moo tax ma tuddee ko doom jullit na waaw moo tax ma tuddee ko doom nekk sama xarit bu baax waaw des fois sax bu gës bu tuddee su ma tunnee nii suñu liggéeyul par exemple ma tunnee gis bébé waali bu ndaw rek mel ni gis naa waali loolu rek doy na ma man tudd hmm, sa xër bi ngeen bi nga xër ci Wally mise à part Idali wala mise à part délégué Amar mais dañoo seetlu yéen ñii di garde corps Wally yi mhm. chaque fois bu amee ñeen ñoo xam ne dañuy dal ci seen kaw ku ci mel ni yow dañ leen ràññee wala Bayla wala wala wala wala wala wala kii euh, wala Amdi dañ leen gis da ngeen di riposter lan moo waral loolu waaw mooy moom mooy suñu leader tey ji xam neexul ñuy jël sa leader di ko wax naka su noonu nga toog di xoolee neexul ci xol yow euh, tey jii man presse bi ku ko laaloon fii tey jii ma dégg ko damay raak parce que man noonu la demee rek wala mooy suñu leader di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan encore une fois yàlla sàmm ko bàyyi ko fi ba si kanam nit ku baax la sama xarit la man sama waay la de mais ñëwoon ñu fi nga fi nga xamante moom ni nga def ba xamante moom bay liggéey ak moom. waaw ni ma la xamante ak moom yàgg na mu xam fàtte naa hmm. boobu dama nekkoon benn fii cité Meynaire boobaa li mu dëkk fii cité Meynaire su ma jungul. Hmm. Aziza moom moo woo dama am ku ñuy dem joobali waal yi ma ko acca ñu dem. Hmm. ma bàyyi sama yëpp nag focus si moom waaw te moom it seetaanu ma waaw ba bërki démb rek bi ñuy joxe xaalis bi. ñëpp man la njëkk woo Baye Zal man la njëkk woo ban xaalis mooy koor gi suukaru koor suukaru koor mm-hmm. Mm-hmm. Baye Zal man la man la njëkk woo waaw ah, man nag laal naa lépp loolu de xaw ma nag waaw mm-hmm. ah, Baye Zal la njëkk woo jox ma jox sécurité bi yëpp jox ñëpp képp ku nekk Ramadane muy wàllu sécurité ngay musicien ngay technicien tout le monde da Wally Seck jox xaalis suukar koor mais nga baal ma question bu am solo la boo xam ne gars yi ñu ngi koy laajte nee nañ yéen di gàrru kooru waali ñi ngeen di ànd ak waali yëpp kenn génneewul ci kooru gàrru koor wala koo xam ne def na formation ci gàrru koor génn ci ay fans waali ñoom ñooy gàrru koor ñooy gàrru koor waali mhm. lan nga ci comme nan mooy ku mel ni yow Fifty. Mhm. yow génne ci formation garde corps. waaw defoo formation amoo diplôme. Mhm. amoo loo xam ne dina firndeel ne que yow garde corps wàññi ak ñeneen ñi say maroon. Mhm. ndax loolu aussi da koy dëggal wala ndax aussi ni ñuy wax ne fan si Wally Seck yi ñoom ñooy ay garde corps. mars 2009 rek maa ànd ak Wally mu ngi nekk si jàmm. sant yàlla. yaa ngi ci for da def formation. def ma formation mais maa ngi def ay xam-xam yoo xam ne heure bu amee jot damay dem def ko. ah mais 2009 ba léegi yàlla mi muy suturaal yàlla na continuer à vie. ndax looloo waral seen xër bu ñu laalee waalee ngeen mel ni euh, ñuy say wala ñeme ngeen tayle seen bakkan ngir waale. non xam nga loolu waale moo ñu ko ji rek waale moo ñu ko ji mu nekk nit ku baax ñu ne yow xër ci moom du man dong de. ni ma mel si keneen noonu la mel keneen ak keneen. moo tax comme ni li ma di depuis 2009 ba léegi maa ngi ànd ak moom yàlla di ma suturaal yàlla na à vie. ba ni may wax yoon nii. mun naa wax ni par exemple ñu su bëri man la gën a xam te man fësuma fax genre fas yu ñuy wax man boo ma gisee conseil ngeen ma gis su kan ko may dem seeti ko ba jeex na. woykat yi niin bare euh, artistes yu bari nekk ci réew mi nga choisir balaa Ballago Seck di ànd ak moom yan jikko moo waral nga gis nga gis choisir Wally Ballago Seck. mais dafa baax déggoo ma la. maman mhm. Diago moo ma booleeg moom. Mhm. ba nii dama koy téye tey jii ba yàlla def li ñu def di mais parfois doo leen ànd ak moom am la nga xamante ne da di metti ngeen koy muñaal ci suuf. ah man de mosuma ko sentir. mosuma mhm. am lu ma metti sama diggante ak moom. mosul mhm. am. mais Fifty xëccoo bi ñuy wax ci seen ci seen ci seen biir. ci ci wàllu faramaareen wala garde corps Wally parce que ñëw nañu mhm. fii ñu ñu gis ci ñi xam ne xàmmee nañ leen ci garde corps Wally yi néew nañu lool. xanaa kay ñenn ñi nga xam ne ràññee nañ leen fi comme Kodo. wala Payla wala euh, El Cap wala ñeneen ak am ñooñu lañ fi ràññee Aliou ak Pape Diop ñooñu lañ mais bëri na gardu corps Wally Seck gisuñ gisuñ leen fii comme ay Thierno Gadiaga wala ñeneen ñi nga xam ne ràññee nañ leen ci gardu corps ndax loolu wanewul lënk-lënk bi nga xam ne yéen a koy am seen non xam nga weeru koor lañu nekk mhm. gars yi tudd bi sax boo gisee ñu def ko presque dañu naan deux heures jot na gars yi dafa dañuy xëdd ak tëdd nelaw mhm. yaa may dégg mais dégg ma yéen boo leen ñëwee rek dafa mel ni faramaane ñëm na Koro mu ngi fi am ngi fi Aliou Pape Diop Moussa Kapo ngi fi ah maam Bella ngi fi Jogomaay mi ngi fi Thierno saw Sawa ngi fi ñëpp ngi fi ah. gis ah, ñoom moom Jogomaay. ah Jogomaay mi ngi fi kay. ah ñoo ngi si kaw si xar bi. ñu ngi si kaw si xar bi. Bayla mi nee ñëpp ngi fi Bayla Aliou Koro was wasa ngi fee. ñu ngi kii dafa was bi. ah Birame mu ngi fi Jogamaay ko Sow gisuñ ko El Capo Amdi Kodo ñëpp a ngi fi Pape Diop Ama mu ngi fi ñëpp a ngi fi. Ama ah. dafa mel ni moom question bu wax question la ah. parce que dañu gis ne Wally bu jugee ñëpp topp ci ginnaawam vraiment ren leen bare mais dafa mel ni ñu bari Wally rek moo leen ñor ñeneen ñoru leen. kuy def ma ne maanaam tey Wally Ballago Seck bu fekkoon ñëw fii di nga gis. ah man nii di ma tiim ñëpp ngi nii di ma tiim laaj leen bu ma demee concert ma xam du ma leen yaatal. ñu ngi nii jàkkaar ak man nañ wax. kon du ci yow ci ñoom la. moom mm-hmm. ñu ngi nii jàkkaar ak man da leen jox gëddam. Mm-hmm. dañ koy témoigner. ñu ngi nii tout le na presse bi su ma deful jàkkaar nañ ma wax. mais ndax sécurité bi lu muy posé question. mooy sécurité bi nga xam ne dañuy ànd ak waale. Mm-hmm. yow tey nga xew xewle yow nga nekk sécurité Wally ah. gisuñu ci teewaayu au maximum dix éléments de sécurité de Wally Seck boobu la ñaar éléments de sécurité Wally ñoo fi nekk fii comptel matul dix de comptel leen matul ñu ne gis nañoo mat dix wala xam nga ñaari sécurité la am. bëri na lool imaam ki matul na lool yéen sax ay sécurité ngeen. loolu des fois da ngay gis na ma fii xoolal kee mi waaye tëb xool ko gaaw ma tunde mi waaye tëb ma jàpp ko. wala kenn waaye tëb loolu du sécurité. benn jour Idda mos na ko def kenn waaye tëb mu ne fii xoolal yow ñaata yoon ñaata yoon yow nga ma ko def yow mii yow Diaz Pro. maas un jour bu demee benn jour concert. kenn waay tëb nga ne ma fi xool kenn waay tëb. waaw mi dem ba tëb ma jàpp ko loolu si yaa ngi jàpp si liggéey bi. mais est que loolu du seen sàggante fi yéen sécurité. non ba xaar ñun ñi nga xamante ne bokkuñ ci sécurité bi a def. mais loolu mooy àdduna tey su ma su ma ko waxoon su ma neexoon du ma ko fa faalee mais liggéey la rek benn rek moo tax waa lii respecté leen fonk leen. mais ba dëju yaayam ji ngeen suturaal ko ba tey ji mm. mu war a demee nii yàlla na continuer mais entourage Wally dafa dafa dafa yaatu tey booy cité di nga cité ku ci mel ni ñu bari ñu nga xam dañuy ànd ak Wally wala bokk ci Faramaren ku ci mel ni omoro délégué Amar ku ci mel ni euh, Baye Zal ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen ñoom Louraas ñoo mënut a cité tey ku ci mel ni garde corps Wally Ballago Seck mm-hmm. officiel euh, di fifty ñëpp xam ko ci baax ci yaatu ci tabe mm-hmm. lu tax ñooñu teewuñu fi est-ce que yëg nañ ko wala yëguñu ko. non xam nga xam damaa wax maas damay tudd. ngeen ñëw sama tudd. Hmm. jàppale ma. Hmm. ndawtal ma xaalis bu bari dama koy wax. Hmm. yéen jox ko maas maas jox ma ko sant yàlla. xam naa koor gi mooy moo métti rek xam nga gars yi dañoo am ñoo xam dañoo ragal koor. te vraiment ne xaw ragal koor xam naa loolu moo tax. mais man sama mbokk yi nañ sama bàjj a ngi toog yëpp a fi. baa ngi nii ñëpp a ngi fi alhamdulilah sant yàlla. waaw xam naa fii ak ngoon. dina neex. après koor gi après ndog bi. Mhm. dina garaaw de. lañ leen mën a sëntu ci diggante Fifty ak Wally Ballago set ngir ëllëg. jàmm rek. Mhm. mu yeggali yoonam yàlla may ma kattan ma ànd ak tan du ko gunge. Mhm. waaw en tant que yàlla muy téye sama bakkan bi maa ñaan yàlla di ko gunge ba yàlla def li gën. bu bu njëkk ba yàggul dara deful sax une semaine Thiat Seck tuddee na doomu Waly Seck. Hmm. yow nga jël nga ndortal ko aussi tuddee ah, tuddee ah maa ngi koy moom ah, mu ngi gën di am ay turandoo bi la loolu la yàlla dogal ah Thiat moom it maa ngi koy tudd maa ngi koy ñaanal. moom it ba soxna ay dara dem fa. waaw gis naa ko waaw waaw gis naa ko waaw naa loolu tamit feete la. Thiat bu tuddee noonu dafa mel ñoo ko tuddee rek xam nga cofeel loolu bu jotee rek jot na déggoo ma sama taaw tuddee ma ko Waly Hamza laa ko tuddee yàlla ma fi mujjee ki laa ko tuddee yàlla moo dogal ma tëb ma tëb rek tuddee waal doom dafa jot rek lu jot yomb sama taaw tuddee ma ko waal te maa ngi waal 2009 la ñuy ànd. coow li bëriwaat na si kaw Wally Seck ak yeneen artistes yi nga xam ne seet na comme ñoom élection présidentielle lañ jugee. am na polémique bu ci am nee nañ Wally dafa jot maletu xaalis ngir mu ànd ak Amadou Ba Pape Diouf ak Sidi Diop dañoo jot maletu xaalis lan ngay tontu ci loolu. Mass presse bi yàlla na am jàmm dama dama am tudd yéen ngeen naw ñëw ndawtal ma xaalis bu bëri presse yàlla na am jàmm maa ngi nuyu sama yaay. mais 50 nga wax ci. 50 foog nga leeral foofu parce que am na yeneen question yu war a ñëw dafa am ñoo xam ne. seen wàll la man loolu sama wàll. loolu boobu daal da dem ci njagu euro wala Baye Zall ngeen làkk ko wala ay omoro yooyu. wala ngeen laaj ko waal noonu. man sama wàll mooy wàllu sécurité loolu xam nga waaw loolu yëguma si dara xaw ma ko te damaa xewle ñëw ngeen ñëw yéen ñëpp kontaan trop waaw. mais war nga mun a leeral foofu parce que tamit euh, citoyen nga ci dëkk bi la dëkk te te lu mu dee dee war nga mën a wax suñu président bu bees sax président Diomaye fay parce que lu mu dee dee Wally Seck euh, dem na euh, ànd ak akim sa jabar jaa nii am am moom mi ngi

sama yaay sama yaay sànni ah bu leen may dara tey sànni. Mara kontaan naa nee naa ko bàyyi amoo sànni moo tax ma koy téye ndax ñun suñu mën. maman ji laa jërëjëf suñu ji. ah ñu toll nii nag jërëjëf amatul jàmm. Thank you.